bu loolu weesoo nag dem nañu wuyu ci jàmm ni ma ko waxoon sénégalais yi ñibbisi ci jàmm fanaan suñu kër ci jàmm ndax nag nee naa leen dossier bii du ngeen ci mës a dégg tëj nañ ci Ousmane Sonko de du ngeen ko mës a dégg du ngeen mës dégg dossier bii tere na Ousmane Sonko nekk président de la République incha allah te lu ma leen mës a wax gis ngeen ko ba ñu demee wuyu ji doyen des juges ñetti laaj la ma laaj ñett. wax ji bëri na ku nekk di inventé lu ne bind nañ ko waaye ñetti laaj la ma laaj gis nga interview bi su euh, audition bi su guddee maa ko guddal audition bi mënoon na durer 15 minutes audition bi mënoon na durer fukki minutes ak juróom ndax doyen des juges ñetti question la ma laaj substitut procureur ne dafa am ay laajam ma ne ko duma tontu say laaj ndax parquet boo xam ne ci complot la dëkk duma ko tontu te dinaa la wax fan ngeen complot yi naa la ci jox ay preuve mu lem ay bagaasam toog ca la ca pare kon interview mu doon na yem foofu audience bi mu doon na yem foofu man maa ko yokk maa ko guddal parce que it li ma waroon wax il fallait ñu bind ko ci dossier bi lan laa wax doyen des juges te dinaa tëjee nag ay laajam li ma ko wax mooy dossier bii lañ ma ciy jiin dara amu ci ay kàcc neen la te yow doyen des juges yow bi ma inculpé boo amee ay preuve teg ko ci table bi parce que xam nga ak ak droit boo jël muy droit canonique li ñuy wax droit wu diine diine chrétienne comme diine jullit muy sax suñu aada ñun muy droit bi ñu yor kii ñu ki tuumal mooy andi preuve waaye di ku ñu tiimal mooy andi preuve su ma duggoon ci bureau mu andi ay preuve teg ne lii de wane na da ngaa def liñ la tuumal kon wax ji jeex na bu yàgg waaye amul benn preuve benn benn preuve boo xam ne doyen des juges génne ko wala procureur ne liñ la tumal lii la amut du benn preuve du luñuy xol du luñuy dégg du luñu bind zéro preuve un dossier vide bo amé preuve nako ko amul benn preuve lu dul déclaration plaignante bi génnewul preuve naa ci dellu si nag benn preuve génnewu ko mané ne ko nak bu ngeen amé ay preuve ana preuve yi parce que loolu day tax mbir mi gaaw dañu naan wàcc daanoo ci gën a gaaw man de su ma jiiñee nit dara bu ñu nee këtt ne jonn ma génne samay preuve teg ma ne ko nag comme amu leen benn preuve dossier bi 2021 8 mars 2021 biñ may inculpé la ma bindoon ci dossier bi mooy li ñu wax yépp weddi naa ko xawma sax lu niroog loolu li ñu wax yëpp weddi naa ko xaw ma lu niroog loolu waaye yow ma ci loolu de ma ne ko en plus de sa nag dossier bi ab complot la te complot bi ji ci nekk diw ak diw ak diw ak diw la kon dossier bi ñaari branche yooyu la dama bëgg Sénégal yi déglu ma bu baax dama di kuñ doon jiiñ ba far tey man maa wëlbatiku di jiiñaate li ñuy wax l'arroseur arrosé man lañ doon jiiñ ba far man tey man maawal bi tiku di leen jiiñ waaye senegal yi laa bëgg ñu déglu li may wax nii man mi ñu jiiñ ñoom àndiwuñu benn firnde benn preuve ci liñ ma jiiñ man mi leen jiiñ dama andi ay preuve teg ko ci table bi lan laa leen jiiñ dama leen jiñ ne complot la boo xam ne ñoom ñoo ko organisé su ma nee ñoom nag dinaa lim ay nit fii yoo xam ne ñoom ñëpp seen loxo dafa takk rëpp ci complot bi nee naa leen complot bi Serigne Bassirou Gueye ancien procureur de la République mu ngi ci daanaka moo ci ëpp sax ay ay agissement ci ko jàppale dëgg dëgg dëgg ci li mu doon def mooy commandant Abdou Mbeng tey defe naa colonel la waaye jamono jooju commandant la woon ka ca tegu te loxoom taq rëcc ci complot bi mooy général Moussa Fall nga xam ne tey moom la ñu dénk lépp luy gendarmerie moo tax mbir mi jaral ko lu ne fi ne nii gendarme yi ne woon ci bàmmeel sax génne nañ leen soxla leen tenue Moussa Fall Gabisso maître euh, euh, fàtte tur bi waaye Gabi lañ koy woowe moom mooy juróomeel bi bokk ñu teg ci maître Dior Diagne bi nga xam ne lañ ma wax soxna la ci Antoine Diome bu leen Antoine Diome it lu ne mu koy ci mbir mi bañ na ba moo dem jël ay ay waa bit ne mooy mooy mooy mooy aar ndaw sax di ko rawale tey ma nga Saly gannaaw suba mu nga Dakar gannaaw nga ñu ci Mamadou Mamour Diallo. mi nga xam ne loo loxoom takk na ci rib waaye ñooñ ñëpp boo leen dajalee nag seen digganteeg Macky Sall mi ne ci gannaaw lu juge war a mënal lu ñëtu la te teg ko fu ma teg nag li ma wax mooy yàlla dafa def ñoom bi ñu commencé ba léegi lu ñu nas rek yàlla génne loo xam ne foogewuñu ko. déjà ci dossier bi rek ak niñ ko traité am na élément yu bëri yoo xam ne nekk na ci déjà naa ci dellu si waaye yàlla dafa def bi coow li amee gendarmerie nationale ci njiitalu général Jean-Baptiste Tine comme coow li dafa bëri woon ba gendarmerie nationale jaxasoo ci mu am coow ci biir gendarme yi général Jean-Baptiste Tine bi nga xam au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire dafa Santon ñu def enquête interne pour l'erreur en Birmi. bi ñu enquête interne il dafa yéet rap dafa dem jox rapport de Macky Sall dégg naa bi ko ko Macky Sall j'espère que c'est la seule copie de ce rapport ma wax leen ni rapport boobu moo ñu dàq général Tine andi général Moussa Fall ndax fi mu bëggoon rapport bi dem fi ko Macky bëggoon a yóbbu général qui est un soldat digne dafa def liggéeyam correctement rapport bi dafa joxe ben procès verbal numéro 063 bar 4 bar HC bar CAB du 14 avril 2021, affaire Capitaine Touré, feuillet 1 à 18. ñaar Nidef, def enquête bi colonel Omar Djoufle et colonel Crépin Arsène Sambo rapport Bobo versé dans le dossier avec accusé de réception Xamna faut que nous rapport Bobo Aïe Sénégal tout doux. Les patriotes ñi seen tappale yi ñu nekk du mucc ni mu amee woon ci certificat médical bi ñu doon nëpp nëppal noonu la amee ci rapport bi noonu la amee ci yeneen ak yeneen rapport bi lan la wax ci responsabilité Serigne Bassirou Gueye mooy sëriñ Bassirou Gueye bi mbir mi amee moom yitteem yépp mooy woon nañu fexe ba jàpp Ousmane Sonko ci saa si moo tax ma ne Sénégalais yéen réglé ngeen dossier bi bi ñu def li ñuy def mars 2021 askan yëpp taxaw ne du fi am boobu la dossier bi jeexee parce que buñ ma tegoon loxo mars 2021 te tey jii ñuy toog ni di wax du ma fi nekk maa nga fële rëbës ñu jël seen taane dañuy def seen instruction parce que Serigne Bassirou Gueye li mu waxoon commandant Mbeng daf ko ne je sais qu'il est trop fier di la ñëw waaye bu egsee rek euh, téye leen ko en garde à vue après déféré ko ñu door ko mandat de dépôt loolu moo ne woon plan bi te bu ñu fexoon ba làq ma nag du ma mën a taxaw fii di wax la ñu liggéey pour leeral sénégalais du am kon foofu la ñu kon mom. dafa dafa dafa dafa li tubaab naan obsédé dafa amoon yitte bu rëy a rëy ci nu muy def ba teg Ousmane loxo ci nu mu gën a dafa mujj di parax paraxe jàpp enquêteurs yi di leen def pression bi capitaine Touré pare rapport am dégg naa nag ñu naan capitaine Touré moom la àndal ak yu demee noonu wallaahi ak ajuma bi ñu ne capitaine Touré benn yoon laa ko mës a gis mooy bi mu ñëwee jox ma sama convocation benn yoon laa ko mës a gis ci àdduna xamuma ko xamaanuma ko jëflantewuma ak moom du démb du tey jii Sénégal nag ku am ngor am dignité rek ñu ne dafa am lu ne ci suuf waaye su doon loolu xam ngeen ni nguur lay àndal kon lii ko dal yëpp du ko dal nañu waxante dëgg. mu def pression enquêteurs yi ne leen gaaw leen pare dossier bi bi ñu defee PV bi PV d' yónnee ko ko lii mi ngi ci rapport gendarmerie bi ma wax de moom moo delloo rapport bi capitaine Mbengue euh, commandant Mbengue ne ko changel rapport bi mu ne ko changel rapport bi ci ban anam ñaar anam benn ñaari anam yu garaaw a garaaw a garaaw bu ci parti rapport yëpp parti rapport initial bi c'était à décharge pour man. ci PV gendarmerie moom la ñu def nii Souligné en jaune ba pare ne parti retranché dans le PV modifié du 9 2 2011 et ayant fuité mooy parti PV bi nekk ci dossier bi nga xam ne Bassirou Gueye moom la dossier bi fi nga yi. commandant capitaine Touré ak capitaine Diouk fi ñu bind ne am na loo xam ne mënul ànd ak dossier siif ndax ku ñuy siif yow yaay organiser siif bi programme ko xool état bi ka nga nekkaloon ci biir nga ne ko génnal yow yaa ko ne génnal kenn newul ne génnal loolu tey na xel xel mënul nangu nit nit mën nañ ko siif ci anam gi ñaareel bi ku ne man dañ maa yónnee SMS boo xam ne mun na compromettre waa ji ñu ne la ana SMS bi nga ne leen effacé naa ko preuve boo xam ne mun na dugal nit ñu yónnee la ko nga ne effacé naa ko ñetteel bi ñi mu àndaloon ñu d'accord ni ñoom ay fani fan ñi ngi taxaw ci buntu institut bi di di géte di xaar Ousmane Sonko ñëw ak ñi ko fa jël si loolu yëpp ñu Serigne Bassirou Gueye ne génne leen ko ci PV bi parce que baaxul. day disculper day wane ni li mënul am procureur de la république buy def lolu faute très très grave la parce que procureur de la république amul droit intervenir ci PV bi mom moy le maître des poursuites c'est vrai mais enquête bi gendarme yi une ko dénk ño am autonomie parce que ñom rek ño posé question ño dem jëli les faits ñom rek ño wara a def sen PV ken du modifier PV même procureur aram na ci mom mu modifier PV waaye sëñ yemul ci loolu de PV bi nga xam ne la yi PV boobu moo nekk nii quatre pages la quatre pages ak quelques annexes parmi lesquels certificat médical bi nga xam ne na lépp ak audition yi loolu la woon que gay ne il faut ma charger dossier bi la def. dafa dem dugg ci ay site internet dem jël ay photo yu bon gis ngeen photo yi photo yi ngeen gis nii dem jël ay jigéen yu simmeeku Serigne Bassirou Gueye de dem jël ay jigéen yu simmeeku daat koy dugal ci PV bi ne institut ba moom moo doon def annonce yooyu loolu faux la mais extraordinaire PV gendarmerie bi woné na ni li musul bokk ci rapport bi waye li gëna c'est neex samay avocat dañu néwon juge d'instruction bi na def réquisition c'est police cybercriminalité xol ndax yi parce que amna ay numéro téléphone am adresse Facebook ndax amna rapport ak institut ba bi réquisition yi génnee luñu wax amul ben rapport wul sax procureur buy def loolu pour charger quelqu'un parce que lim tu ci doon ut te non lañ ko waxé ci PV bi non la ko capitaine Touré waxé ci témoignage am li mu doon ut mooy fexe ba ndaw see ñuy wax Ndeye Khady nga xamné lu na ko ko tuuti mu rey domam dañu naroon assassiné domam. ñu fexé ba gëmloo nit ñi ni moom ab proxénète la da doon jaay ay jigen mun a jaare pour atteindre ma man li dama ko wax le juge d'instruction daal koy génneel des preuves teg jox ko rapport bi nga xam ne lu du lu ñuy lam-lame moo tax ci fan yi fii ak lundi bu soobee yàlla dinaa déposer une plainte devant la chambre criminelle de la cour suprême ak devant l'égage contre Serigne Bassirou Gueye parce que Serigne Bassirou Gueye ab criminel la tappaleem yi mu moo jural Sénégal fukki bakkan ak ñeent ci ay complot yoo xam ne procureur bokk bokk na ci ñu ko sumb ñaareel bi mooy lu mu doon def yépp nag commandant Abdou Mbengue la ko doon defloo parce que bi enquête bi paree ba capitaine ture ak capitaine Diouk di ko doon jàppale joxe commandant Mbengue da leen génne ci mbir mi verrouillé te moom nangu na ko ci PV gendarmerie bi enquête bi moom nangu na ni moom la Bassirou Gueye ne changé mbiri mu changé ko li ma leen wax ni noir sur blanc la de moom nangu na loolu moo tax ma ne boole naa ko ci parce qu'il est complice parce que nit ak nu mu ti demee ak noo bëgg-bëgg carrière bu la joxee ay instruction yoo xam ne dëppoowul ak yoon danga ko war a bañ ñetteel bi mooy général Moussa Fall général Moussa Fall ay fani fan bala bés bi ñu ne la mbiri am ba ñuy accusé 15 jours avant général Moussa Fall dafa yebal ay nit dafa yebal ben MDL chef té loolu bi ci rapport bi té ñaari gendarme confirmé nañ ko yebal MDL chef wo directement commandant Abdou Mbeng ñu tëb toute la hiérarchie de la brigade de recherche Dadi wo ben ne ko demal sangam bo demé na nga surveiller parce que ñu wax ni diw dafa fa benn ben xalé bo ne mineur la torturer commandant Moussa Fall kon mom a na du ak gradam bi mu position bi complot pour ne dafay fexe nu muy ootalee Ousmane Sonko pour jàpp ko te lii nekk na ci rapport bi waaye man mii di wax ak yéen MDL chef boobu ñëw na ba ci man ne ma man mii la ñu yebaloon foofu man mii lañu ñu yebaloon foofu bi ma demee fexe naa ba dugg ci bërëb ba bi ko xoolee ba pare dama génn ne li ngeen wax mënul am fii noo seulement gisuma ko faaye mënu fa am parce que bërëb boo xam ne famille dëkk na fa ay nit nekk nañ fa loolu mënu faa am lii bañ may téye section de recherche ma def fa juróom benni fan MDL chef boobu fekk na ma foofu wax ko kon général Moussa li mu def déshonneur la pour armée yàgg nañ ko tuumal nag ay complot yàgg nañu wax ni loolu mooy métier am colonel Abdou Aziz Ndaw bind na ci lu bëri ci livre am waaye lii lu ko firnde la moom général Moussa Mamadou Mamour jàlloo moom Sénégal yépp xam nañ ni takk na ci ndax mbañeel gi ma bañ ci ni ma ko yoolee ci ni ñu fexee ba su Sénégal ci dossier bi ngeen di dégg muy 94 milliards yi. te dem wax naa ko juge bi nee naa ko yéen justice matu leen justice opposants yi ngeen fi nekkee di tëb di dal lu leen Macky Sall ne def leen ngeen def lu mu leen ne teg leen suuf ngeen teg ndax dossier 94 milliards yi. fii laa ko andi doyen des juges ne classement sans suite parce que donte li ñu wax am na Ousmane Sonko du moom moo ko war a dénoncé est-ce que dégg ngeen wax jooju ku fekk ñuy sàcc nga yooxu ne ëpp sàccee ñu ne la bàyyil sàccee bi mu dem parce que yow yaa ko wax borom kër gi rek moo waroon yooxu ci loo xam ne suñu alal la ñun ñëpp sénégalais yi may député un député représenté sénégalais yëpp warul mun a wax ci turu sénégalais yi. procureur ma ma def recours ci moom mu jël mbir mi teg ci tànkam waaye yàlla woo yàlla comme dama de saisiroon OFNAC OFNAC génne benn rapport rapport bi dina génn dina publier dañ ko génne ñëpp gis ko xam nga rapport bi lu mu wax nee na li Ousmane Sonko yépp wax dëgg la escroquerie bu extraordinaire la ba pare laaj procureur ne ko ubbil ay poursuite contre Mamour jàlloo ak ñi mu àndal procureur bu bees bii mi ngi teg tànkam ci rapport boobu Macky Sall daal di génne décret nommé Mamour Diallo ànd ak moom xaw fan ñuy signe mel ni ñu jaaxle Sénégal li moo fi am balaa ngay ànd ak Macky Sall rek nekkal sàcckat nekkal sàcckat wala ngay reykatu nit mu kontaan nag daal lay nome c'est extraordinaire li fii rek la mun a am waaye ci PV audition yi nga xam ne Ndeye Khady def na ko. moom ci boppam nee na bi muy ne bi koy section de recherche Mamour Diallo da ko proposé 40 millions nga changé sa version mu ne ko mu proposé ba mu 200 millions changé sa version pour enfoncer Ousmane Sonko ndaw si diiñe bëgg nañu rey sa nañ la xaalis menacé nañ la toj nga am sa dignité ne lii duma ci dugg parce que lu dul dëgg duma ci ànd kenn waaye yéen ñëpp nag dégg ngeen enregistrement boo xam Mamour Diallo ak plaignante bi Adji ñoo toog di wax mu naan ko liñ la diggoon yëpp dinañ ko def bu procès bi rombee dinañ la jox sa visa ak sa passeport ak liñ la waxoon yëpp nga génn réew mi xam nga loolu du lu ñuy man li wax yëpp dama ay évidence ay preuve te kenn tegalaguma benn preuve ci ñoom li ñuy wax moo tax ma ne dossier bi jeex na bu yàgg wax jee bari rek maître Gabisso bi nga xam ne nag goro la ci Mamour Diallo gorom la metre Gabisso boobu bi mbir mi amee dafa ne moom yéegul tinul ñu dem ba ci biir mu ne 15 jours avant les faits recevoir naa xale bu jigéen bi jox ko ay conseil ñu doxati gynécologue bi bi mu demee doyen des juges intéressé ko ci PV bi dafa né maître Gabisso moko wo la veille le premier né ko est-ce que suba di nga nek Dakar mu né ko wa mu né ko déglu le lendemain mu xey ba guddi waa ji woo ko ne ko dafa am xalé bu jigéen bu am problème sàngam sangam dama bëgg nga dem jëli ko mu né man bëgguma woon sax waye dañ ko né xalé bi fi mu ne mi ngi diggante dé ak dundu so demul du baax comme médecin la bu né suma ma demul. mën nañ ma ne assistance à personne en danger non assistance à personne en danger mais nag ma demee ba foofu biñ ma andilee ndaw si dama leen ne kii la kii ngeen naat mi ngi diggante dund ak dee kon moom ci ñu ràbb affaire bi la ci digganteem ak Mamour Diallo ak lu ñu séq te loolu mi ngi ci dossier bi juge bi gis na ko maître joor Diagne bi nga xam ne mooy soxnay Antoine Diome yéen ñëpp gis ngeen li mu njëkk a rëccal te tey mu andi problème ci biir baro bi ba tax du ma ci sori waaye Sénégal yëpp gisoon nañ wax mbir mi naka la war a demee bu leen ko tëj bu leen ko jàpp na ngeen def nii nañ fexe ba procès am rek ñu fexe ba yàq deram ngeen bàyyi mu ñibbi mooy plan bi rek ñoom Antoine Diome moom moomu ak keneen ak keneen waaye moom it seede ni bés ba moom moo àndoon ak ndaw si ne da ko section de recherche ba fekk fa Ndeye Khady menacé ko ne ko da ngay dof dof lu boo deful lii dinañ dinañ la rey kon moom it ci complot bi la bokk kon yii yëpp dañ koo indi ak ay firnde jox ko doyen des juges ne ko bindal jox ko papier yi koy wone ak preuve yi teg li gën a neex gis nga nee naa leen audience bi man maa ko guddal ndax mënoon na durer quinze minutes waaw may laaj sénégalais yi nag dossier bi ni mel yow jiiñ nañ la nga jiiñaate li nga jiiñaate yépp nga am ay preuve yoo teg te wax naa ko doyen des juges nee naa ko yow fi mu ne nii say enquête xam nga fan nga ko war a orienté mooy ñi def complot bi te ci li ëpp ci li muy def actuellement loolu la parce que amul beneen pexe ñu ne ko ñi def complot bi fàttale naa ko li ñuy scandale Watergate États-Unis defe naa ñëpp dégg nañ ko lan moo doon Watergate moy ñi yoroon nguur gi dañu nasone benn complot contre opposition complot bi mu éclaté waye complot boobu mo mu yóbbu ba président Nixon mu démissionné ma ne ko foofu nga war a comp euh, sa enquête ndax amo dara ci viol amo dara ci agression Amo, dara ci menace de mort benn firnde bu ñu mëna tégal ci table bi amul. léegi nag ku lay jiiñ mënul àndi preuve est yaa koy jox preuve ku la jiiñ mënul andi benn preuve benn question la ma juge bi laaj mooy est-ce que di nga nangu joxe sa deret pour ñu def test ADN ñi kilifa yu toll nii yëpp daje def seen complot ba ficelé ko complot bi claté yàqu amuñu lenn lu ñu mën a teg ci table bi ñu ne man ma jox leen sama deret man Ousmane Sonko ñu yóbbu ko xaw ma fan daal di génn ne ah conclusion yi mooy lii may leen xanaa ngeen dem jëli deretu Bob Marley de sama deret man mii ilaa yow mi di du ngeen ci jot.